نجامو كل البرم أسمان نغت جامو ياكو يلو ليرم الجامي صانو يرم لني سانكو أنكو بفاو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi dellusiwaat ci seen émission bi nga xam ni mooy tribune di tawxid saison 1 fii ci Islam TV Sénégal ci seen téere bi nga xam ne mooy ak tawxid lin nachia wal mubtadiin muy la tawxid pour les débutants tawxid pour ñuy tàmbali jàng tawxid ñu ngi taxawoon ci mbëgalum bàmmeel tey ñu war a tàmbali ashraatu saa ashraatu saati muy li nga xam ni mooy signe yi nga xam ne ñooy signe annonciateur ci li nga xam ne mooy fin du monde signe annonciateur ci fin du monde muy mandargay bés penc euh, mu ne mi mi maa yajibul imaanu bi dafa bokk ci li nga xam ne jaar na ci julit mu gëm ko an nu'minu bi anna saata atiyatun la rayba fiha ñu gëm ne bés penc day ñëw amul sikki sàkk kooku julit bi waru cee sikki sàkk ni nga gëmee ni tey la alxamis suba la ajjuma ajjuma ginnaaw suba la samedi li nga gëmee ne ajjuma samedi day ñëw boo dundee di nga ko fekkee ajjuma day ñëw soo dundee di nga ko fekkee dimanche day ñëw soo dundee di nga ko fekkee dimanche dina ñëw ah nu ko raw nga war a gëmee ne bés penc day taxaw wa anna mawidaha la yalamuhu illa allah kenn xamul nag àppam kañ la mais dana ñëw moom mais ban date la kenn xamu ko ku dul yàlla akhfaahu an innaasi kullihim yàlla da koo nëbb mboolem doomu aadama yi ba ci yonent yi xamuñu bés penc ban date la alayhi salaatu wasalaam bi Jibril ñëwee di ko ko laaj dane ko ki koy laaj te gënu koo xam ki mu koy laaj wala ki ñu koy laaj gënu koo xam ki ko koy laaj mu ne yaqulu taala yàlla suñu borom mu kay mi ngi wax naan yasalunaka ani saati ayyaana mursaaha waaw ñu ngi lay laaj bés penc waaw naan bés penc moom mbiram mbirum mbirum taxawam kañ la kañ la ko suñu borom di taxawal qul illa qul innama ilmuha inda rabbi wax leen ni xam-xamu bés penc kañ lay taxaw de suñu borom moo ko jago لا يجليها لوقتها إلا هو دو فين الوقتهم كن من تفين الوقتهم كدل موم يلا لولو وخلنكو أه... كن بروم بي سانتا لير الله فوف ديغا خامن موي لا اجو سي بس بنج أه... من وقت سبتا سخنا عن رسول الله جلت يونت بي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره اي حديث بري في بيان كليرال علامات الساعه مندر بي بس بنج واشراطها وأماراتها أكسي نيغا خمني نيوي تخ نيوي واني أك أكسيم وقد فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام ويرن جوغي تنتبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر لساعة علامات صغرى نبوس بين جنفام أي سين يندو أي ماندرغ يندو معظمها yi ëpp ci mandarga yi ndaw yi ya duur dafay dafay dafay dafay dafay nekk daanaka dafay tënku ci xawla fasadi nnaas ci nit ñu yàqu jamono joo xam ne da ngay seetaan nit ñi yàqu nit ñëpp foo nekk ay faux type kenn du dëggu tappale wuruj wane noo melut def loo gëmut ah sol mbubum diine te gëmoo diine nitu caaxaan nga ainsi de suite yàqute yàqute yàqute gi am ci nit ñi ci wàllu jikko fasaadul xuluq yi muy jikko ji yàqu ñeme wor def wor métier ah siiwal mbóoti jàmbur siiwal secret jàmbur ku la wóolu nga war ko ku la wax secret nga daal di koy siiwal bu ñu ba toll foofu doomu aadama yi koo wóolu mu war la koo wax secret mu siiwal ko kuy wax du wax dëgg bu ñu ba toll foofu mooy bés penc yi moom mandargay ndaw yi ñu ngi koy dund su boobaa te yaakaar naa ñun suñu jamono ji koo xool warante gi mel ni tullakee man la naxante gi tappale gi triande gi euh, siiwal yëfi jàmbur siiwal secret jàmbur ni mu doxee tey tey nga mën dem ba gis ay compte youtube ay compte facebook yoo xam ne ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy def mooy génnee ay vidéo secret jàmbur ay audio jàmbur nit ñi bu ñu xëyee songu page yi page yooyu ñu ëpp ay vues dinaa weer jàmbur dinaa tas jàmbur dinaa siiwal jàmbur dinaa yàq jàmbur dinaa massacre jàmbur tey foofu lañu toll loolu boo koy xool tey dangay gis ni alayhi salatu wasalaam li mu waxoon daanaka agsi nañ ci mu ne wa zuhuril fitani baynahum ay fitna yu bëree bëri fitna yu bëri fitna yu jéggi dayoo loo xalaat ci wàllu fitna aduna ak ci aduna bi tey ñu ngi koy dund fitna yi diine fitna yi politique fitna yi économique fitna yi social fitna yi xeet fitna yi race ah façon fitna koo xalaat tey aduna bi ñu ngi koy dund aduna bi dëkk yëpp ñu ngi tàkk dëkk yëpp ñu ngi ci ay coow ñu ngi ci ay xeex ñu ngi ci ay xulo ñu ngi ci ay rayante ay ay nit ñu ngi daw di réfugié wu ah bañ créé ay au commissariat de réfugiés tey lu tax mooy aduna bi dafa bëri ay nit ñoo xam ne dañoo génn seeni dëkk daw di làqatu ci ay àll ñii di làqatu ci ay dëkku jàmbur ñii dégg ay frontière jàmbur dafa làqu ji ngay xool phénomène Barça wala Barsax gars yi jël ay bato di dee ci biir ah, ah, génn seeni dëkk pour rek bëgg am économie ak bëgg am dundin gu gën a baax seen dund tey daanaka àdduna bi yëpp ay fitna la fitna yu doy waar ngay gis tey fitna yu doy waar tey ñu ngi koy dund nit ñuy reyante ngir wàllu alal rayante ngir wàllu dorog rayante ngir wàllu nguur rayante ci wàllu li nga xam ne mooy euh, wàllu koom-koom rayante ci wàllu xeet rayante ci wàllu askan rayante ci wàllu couleur tey àdduna bi foofu la toll fay kon fitna yi tey foo ko natt romb na fa tey dëkk boo jël am na fitna dëkk boo jël am na fitna gu fa nekk moo xam ci politique moo xam ci xeet moo xam ci waaso moo xam ci wàllu làkk moo xam ci wàllu couleur moo xam ci wàllu économie muy wàllu koom-koom ah moo xam ci wàllu diine moo xam ci leneen ak leneen wanxiraafuhum an siratillahi almustaqim nit ñi dañuy dem ba dañuy jeng wàcc sirat almustaqim daanaka ñu néew ñooy nekk ci diine yàlla ji ñu néew ñooy nekk ci diine yàlla ju set ji nga xam ni amul caaxaan diine joo xam ne amul tëgg ga fecc amul way amul pàkkar ñi diine joo xam ne amul tourné amul supp jalañ amul périer diine joo xam ne jàng alquran zikr ci ni ko yonente bi alayhi salaam jàngale dem jàkka ji julli ji euh, def lu baax digle lu bon wax lu baax bàyyi wax ju bon bàyyi jëf ju bon jub kocc jub kocc doo fen doo jëw doo tiriyaange doo wor doo naxaate doo toppale doo wurit loolu ñu ñu néew ciy des am pas-pas bu normal di jaamu yàlla jaamu yàlla bu set wecc sori ay bida sori bokkaale sori mooy yàlla loola daanaka dañuy dem ba day néew ci jamono yàqute gi mooy gën a bëri diine xumb xumb lay doon xumb nit ñi la leen di yitteel ci diine du du sellal ga du jaamu yàlla gu wér ga mais xumb ga lekk naan xumbaay ba tëgg fecc nga xam ne ahlul kitaab lañ doon def ba yàlla ne leen da ngeen jàppee seen diine wan wala iba mooy foo ak caaxaan foo ak caaxaan dañuy dem ba diine loolu lay doon lu xumb rek mais nit ñi jub tënku ci siraatal mustaqim xool lu yàlla digal ñu ne ci yàlla araamal ñu bàyyi lu yàlla tere ñu daal di moytu lu yàlla digle ñu ne ci lu yàlla santaane ñu daal di koy jëfe loolu dootu leen yitteel mu ne fi mu ne alaamaati saati fi mu ne alaamaati suxra bokk na ci mandarga yi ndaw yi maa jaa fi xadiisi jibril moo la ñëw ci xadiisu jibril annahu moom jibril saala laaj na rasula yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an saa ci wàllu bés penc fa qaala mu ne ko mal masul anha bi aala min asal ki ñu koy laaj gënu koo xam ki koy laaj qaala fa axbirni amaratiha mu ne ko xibaar ma xibaar ma signes yi mandarga yi qalal an taydal amatu rabataha an taydal amatu ربتها بجس دم بجس جام بيجور سنجم وأن ترى الحفاة العالى رواء شعير طاولة في البريان بجس سامو كديا برم تانكو آه ندم با نياك نيا دم ب ب ب ب سامو كتو غاتيا دم با أم علل جتبق أي إتاجي كتو بأنا ومن علامات الساعة الصغرى بكون كمان درجة ساعة يندوي أن رجلا نك بن واي قال وحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكو وخداري وخجلنتي عليه الصلاة والسلام نكو متى الساعة بس بين جكاني faqaal mu ne ko isa diyaat il amaana bu ñu demee ba ba ba kóolute amatul wó koo wóolu mu war la fantasir saa da nga xaar bés penc kenn wóolatut ñépp dañoo jubati qaala wa kayfa idaatuha mu ne ko waaw naka la ñuy sànkee li nga xam ne mooy mooy kóolute ga qaal mu ne ko isa usnida al amru ila gayri ahlihi bu ñu demee bay dénk nit loo xam ne du spécialité mënu ko ci yaama neex la tege relation xamante nañ soppante nañ bëggante nañ yaa fi sës wala yow daal yaa koy jiite loolu rek laa fi teg donte mënoo ko mu ne fantasiri saa na nga xaar bés penc mbokk yi ñaata lañ nommé ci ay directeur général mérité wuñ ko ñaata lañ jox ministre mënu waruñu ko woon nekk ñaata nit lañ fal député xamuñu luy député xamuñu rôle député xamuñu lan mooy li leen war lu leen war xamuñu ko ñaata nit lañ nommé ay PCA ñaata nit lañ nommé secrétaire général wala président association wala président kuréel wala mbooloo ñaata nit lañ def imam te mérité wuñ imam charte imam dajagul ci ñoom ñaata nit lañ def chef de quartier waruñu koo nekk ñaata nit lañu def maire yellawuñ ko xam-xam bi condition yi dajewu fi lijjanti ba ba faru la loolu ci lu doy waar la tey ngay gis nit koo xam day nekk médecin amul diplôme yi day nekk professeur diplôme yi ko war néew fii day nekk directeur diplôme yi ko war néew fi lijjanti la lépp ci lijjanti la tege mbokk yi lu doy waar la nit day nekk chauffeur amul permis day lijjanti ba am ba am permis nekk chauffeur mbokk yi lu doy waar la ñuy dund la ñuy dund lu doy waar day dem trafiqué registre de commerce nekk commerçant la am na am de commerce import export c'est doonu ko lu doy war la ñuy dund nit day dem trafic ay diplôme ne mom la mo jàng li mo xam li amna diplôme yi te amuko ko day war waar wa amma al alaamatu al kubra kanta mandar mandarga yu wa hil amarat al qariba al kabira mooy yi nga xam day jégué lol bu bés penc alati taqibu hassa nga xam ne bu agsee rek bu penc a ngi ñëw agsi na daanaka wa annaha tatabu tatataabau dafay toppalante ka khazarat in inqata silkuha comme comme li nga xamne moy ay peru tiaka yo xamni tiaka bi dafa tag rek ñu topalante di wat non lay mel muni faqad jaa fi al akhbar as sahih ñew na ci xibaar yu wër ذكر عشر منها يونت بي تود فك يي ماك سي ماندرغا يي ماك ييغا خا نيو توب نيو توبلانت من وذلك كحديث حذيفه ابن اسيد الغفاري لي نيو سي حديث حذيفه الغفاري حيث قال من اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتزاك يونت بي دا فنيو يير fekk ñun ñu ngi ñu ngi nafar suñu biir fa qaala maa mu ne waaw yéen lu ngeen di nafar lu ngeen di waxtaane qaalu natazakara saa ñu ne ko ñun de mbiru bës penc la ñuy waxtaane qaal innaha lan taquma xatta tazula xatta taraw qablaha ashru ayatin mu ne ah bés penc du taxaw de lu dul da ngeen a dem ba gis lu ko jiitu fukki aaya fa zakara duxaan mu tudd saxaar si nga xam ni dafay saxaar ci aduna safara si day tàkk ànd ak saxaar si aduna fu waay toll ci biir ci suuf ci kaw suuf di ko seet nga xam ne ma ngay tàkk ay booru ay booru ay booru Palestine wa dajjal masihu dajjal feeñ nga xam ne benn mbindaakoon bu bu yéeme la bu feeñee day woote wone mooy yàlla fépp lay dugg ba mu des Màkka ak Madina alayhi salaatu salaam mu ne du dugg Màkka ak Madina mu ñëwee bunt bi dafa am ñaari malaaka yi fa taxaw dañu koy sànni ay safar mu daal di dellu fépp lay dund dafa yor àjjanaam yor safaraam mu ne dina ko topp mbooloo mu bëri ci juif yi dinañ ko topp mbooloo mu bëree bëri ci juif ko topp day joxoon asamaan ne ko tawal mu taw mu joxoon suuf ne ko saxal suuf sax yàlla may ko kéema kéemtaan pouvoir yu jéggi dayo yemu fa mu ni wa wa ba bañu daaba boo xam ne day feeñ daaba joo xam ne day feeñ génn ci suuf si di wax ak nit ñi naan ko yow naafiq nga yow nitu safara nga yow nitu àjjana nga ku mu romb wax ak yow yow ku bon nga yow ku baax nga noonu lay def mu ni wa tuluu shamsi min maghribiha ak jant bi daa di daa di fenk fa mu daan sowee wa nuzulu isa bni mariam isa bnu mariam daa di wàcc jóge ci asamaan wàcc ginnaaw bi ko yàlla yëkkatee mu wàcc ñëw fi ci kaw suuf pour daa di jàppalante ak mahdi pour rey masihu dajjal fële ca baabul luda ca falastin wa ya juuju wa ma juuju aw ak nit aw nit buy génn boo xam ne ñu ngi tudd ya juuju ak ma juuju lu fi nekk ci lekk ñu lekk lu fi nekk ci naan ñu naan ko fu ñu jaar maasale ko yàqu ko ba mu yàqu tasat mu ne wa salaasa xusuufin ak ñetti xasf ñetti euh, li nga xam ne mooy suuf soo xam ni dañ koy dóor benn bi day amee ca faj Moyen-Orient beneen bi amee fële nga xam ne mooy fa jant bi di sowee beneen bi amee ci presqu'île arabique bi ci digg presqu'île arabique bi lu ciy mujj mooy safara suy génn yaman dàq nit ñi jiital leen jëmale leen fële nga xam ni mooy ardul mahshar mooy fa yàlla di dekkalee doomu aadama yi ñu war faa daje ñu àggee foofu ñëpp faatu ah yàlla dekkal jaam yi nag ñëpp daje foofu mbokk yi mooy fukki màndarga yi mag yi gën mag yi wane na yii moom ku ko gis moom xam ne bés bañ ci taxaw na mu ne wala taxaddasu ala sabilil misaal daañ waxtaane par exemple an ahadi haadihi l amaratu ci benn ci li nga xam ne mooy màndarga yi mag yooyu ne haaji asharaat mu ne bokk na ci yooyu zuhuru dajjal bi ñu waxoon mooy feeñu masiixu dajjal mu ne wa dajjal dajjal man baul kufri wa dalal moy mandar gay li nga xamni ni kéeféer ak cyankuté wayan buul fitan wal awjal fitna yépp yi gëna métti ci mom lay sorté ko métti coono jafe-jafe yu gëna métti ci feñu jamono ci lay fé ci lay feñé mu ne qad anzarat bihi l anbiyaau aqwaamaha mboolem yonent yi mos a ñëw wax nañ seenu nit ne len ñu ngi ñaan yàlla mu mos len ci masihud dajjal yonenti bi alayhi salaam bokku na ci ñaanam daana wax allahumma a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa fitnati al-masih ad-dajjal yàlla yàlla mu musal ci fitnay dund ak de ak fitnay masih ad-dajjal jàngal ñuko ñun buñ julle boy tayé bala ngay sëlmal ci tayé gu mujjigi nga muslu ci fitnay masih ad-dajjal mune wa hazzarat minhu umamaha wa naatathu bin nu'ut az-zahir mbolam yonenti mo ci loolañ seen xet masih ad dajjal joxe nañ ay ay ay ay qualification ay melokanam ba nit ñi xam moy kan ñi moytu ko وصفته بالاوصاف الباهره مولا ملوكان يم ام يفاي نيب وني نانكو وحضر منه المصطفى ينتبي عليه الصلاه والسلام موي كي نكو صلى الله عليه وسلم ونعت الامه نعتا لا تخفى على ذي بصير على ذي بصر كيب كو ام خيل ام بت ينتبي عليه الصلاه والسلام جوخنا لا كاليتي اك اي اي كريتير يو خامني ورغا تي خامي مسيح الدجال با دوكو جاخسي كين موني فان انس قال ينتبي انس موني قال وحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا قد انذر امته الاعور الكذاب امو بين ينتبي لودل mooy moytu loon xeetam ki nga xam ne mooy borom bët bu patt bi boroom benn bët bi muy masiixu dajjal narkat bi ala innahu aawar xam leen ne moom dafa dafa patt wa inna rabbakum laysa bi aawar te seen borom moom yorul benn bët bu ñëwee danaan mooy yàlla te yàlla yorul benn bët moom benn bët la yor maktubun bayna aynayhi ka fara diggante li nga xam ni mooy euh, jëm bi bët bi ak jëbi dañ caa bind ka fara kaaf ak ak fa ak ra buy wañu ni لو لين كابين كوفو جيس رك خم نكون ريال من وان أبي هريرة جلنت أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدثكم حديثا عن الدجال أبو هريرة من جلنت بدنيا طب بس مني وارد نخدم لين وقت عن بير مسح الدجال ما حدث به نبي القومة موي مين موي مين خم نجلنت بنيك وقت عن القومة إنه أور دفبت وإنه يجو معه بمثل الجنة ورنا قيرنا لملني أجنا أغلو ملني سفرة فالتي يقال إنها الجنة هي النار لولا ينان موي سفرام خم لين موي أجنام مني wa inni unzirukum kama kama anzara bihi nuhun qawma maa ngi leen koy moytuloo comme ni ko nuux moytuloo woon aw nitam mu ne wala najaata min fitnati dajjal illa bil ilmi wal amal kenn mënta mucc ci masiixu dajjal lu dul ci xam-xam ak jëfe jëfe diine amal ilmu xam-xam bi mooy fa bi an yaalama annahu jasad yaakul wa yashab nga xam ne kii nit la jëmm ju yàlla bind la jëmm ju yàlla bind day lekk di naan su ma innahu la li xissatihi wa wa ajzihi aawar nga xam ni ak tëleem ak li nga xam ne mooy ak tuuteem ku patt la su mënoon dara du patt wa mawsumun bayna ayni annahu kaafir dañoo bind ci jëbi ne yéeféer la wa amal amal kanta jëf gi fi bi an yastaiza billahi min fitnatihi fi tashahud al axir min kulli salaa mooy nga ñaan yàlla musal la ci moom ci booy tashahud ci julli booy taaya ci taaya gu mujj gi julli bu nekk nga ñaan yàlla musal la ci moom comme ni ko yonente bi alayhi salaam jàngale wa an yaxfada ashru ayatin min awali aw ashra ayatin min awali surati al kahf ñu ki daal di mokkal achara aya fukki aya yu jiitu ci suratul kahfi comme ni ko alayhi salatu salaam waxee man xafisa achara ayatin min awali suratul kahfi usima min addajjal ku mokkal fukki aaya yu njëkk ci suratul kahfi yàlla musal ci masihu dajjal loolu mi ngi ci sahih muslim ci sunanu tirmisi ak ci li nga xam ne mooy sunan abu daawud kon loolu mooy li aju ci wàllu li nga xam ni mooy ashratu saa incha allahu taala li ci tege mooy wàllu dekki albaasu mooy dekki tomb boobu dañ koy bàyyi ba dars bi di ñëw insha allahu taala ñu jàngal lu aju ci wàllu dekki ah, ak leeral ñi nga aay ah, yi nga xam ne ñëw nañ di wane ne dekki am na ak wane ne yéeféeru màkk yi dañ koy weddi woon gëm ne daal boo xasee ba dee rek jeex na mais su fekkoon boo xasee ba dee jeex na yàlla su kon suñu borom dañ naan yàlla xanaa maanduwut ki sàccoon sa alal du la fay ki la agressé woon du la fay te gisatoo ko yow ma tax ngeen war a daje mu fay la woon la fay ki la jëwoon yàq sa der du la fay léegi yow yaa moom gañe na ci ci sàcc sa télé yóbbu ko sàcc sa portable sàcc sa xaalis sàcc sa euh, oto sàcc sa moto sàcc sa engin ah sàcc say matériel yóbbu ko yow gisatoo ko yowmal xiyam amul moom moom gañe na yow yaa xanaa yàlla maanduwul <laughs> loolu mënul nekk mënul nekk ki jàppoon ay nitam di leen mbugal en tant que buur bu mel ni firawna ah toroxal say nit rey ñii gàcceel nii tëj ñii exilé nii euh, toroxal ñii xanaa kooku moom yàlla bu àttewul moom moom moom moom gañe na kon kenn du ko àtte moom di nekkoon procureur la nekk juge tëj ku ko neex tëjji ku ko neex toroxal ku ko neex bugal ku ko neex te dara du ko ci fekk moom foog ñu àttewaat ki koy àttewaat mooy yàlla bu fekk kañ la bu dekki amee su fekkoon dekki wuñ kon moom day gañe moom day def lu ko neex dara du ko dañ naan yàlla xanaa maandu yàlla ak a maandu ki fiir nit ki daw te moo ko tey mu dee ñu ne ko léegi yow man amul moom mu dee waa ji dee ñoom ñaar ñu yem ñu perte ki mu reyoon perte moom mu gañe kon dañ nan ah yowal xiyam gis nga dafa logique dafa logique lutax moy ku toñon nga fay li nga toñ ak logique motax day am day am ah day am fi kon ni nek ben policier wala ben commissaire waji ni xol nga ne ko yow dama lay laq bi for force wa d' leg il faut am fu ngeen dajewaat mo mu jël akam il faut am fu ngeen dajewaat mu jël akam motax ba sa dekki foog mo te li wone ne dekki amna ak bëri ci misal ci réalité ak bëri waye ci li nga xamni moy taxi koy wone aussi ak bari kon dañ ci ñaan suñu borom bayyi ñu fi bañ ñëwaat su ko defé ñu dugg ci taxi bobu wa sallallahu wasallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilahi ñun dunu jaamu ku dul borom asama asamaan te jaamu ya ko yello li yaramal ñi sanu yaramul dañi sanko al kubafa